salaamaaleykum waa Sénégal donc dama ñëw juste rek pour indi benn réplique contre Ousmane Sonko parce que nit da ngay tàmm di wax dëgg mënoo aspirer diriger dëkk te bëgg a jàpp sa àddina yëpp teg ko ci ay kàcc. mënuloo taxaw ji ay doom nit ñu baax ñu juddoo ci réew mi doon am doon ay homme d'affaires ñi nekk ay homme politique nga taxaw ji leen quatre-vingt-quatorze milliards te yow doo président. moo réew mi xaalis bi porté porté wu la préjudice moomuloo ko te ca biir xaalis boobu sax yaa ngi ci doon wut loo am ndax fii ñëpp xam nañ ni am nañ fi ay audio yoo xam ne wane nañ ko yoo xam ne Ousmane Sonko da doon négocier ak cette famille là parce que man je suis de Rufisque xam nañ ni mu demee. léegi yow tey ñu débouté la sa kàcc yi nga doon kàcc yëpp ñu ne kii li mu wax yëpp du dëgg day fen nga nga taxaw di ñëw di wax naan euh, Boubacar Seye. lan la jot ak yow Boubacar Seye dafa taxaw accuser état bi ci xaalis ñibbi si Sénégal ñu woo ko laaj ko joxewul ay preuve leer ñu téye ko man nag yéenewuma kenn kas su ma sañoon Boubacar sëy këram lay fanaan mais yow nga taxaw di wër télévision yeeg rajo yi fu ne nga taxaw fa naan li Boubacar Seye wax wax naa ko man loolu amul sens dañ la débouté wax la ne la li nga wax dara du ci dëgg ay kàcc la waxal ci waxu 94 milliards yi nga ji ay per de famille ñoo xam ne dañoo am ay doom ñuy dox ci dëkk bi am ay jarbaat am ay mbokk yori jabar yor lépp nga jiiñ leen sàcc seeni doom fu ñu dugg ci école yi ñu ngi leen seen bàyyi sàcc te ki leen ko waxoon ci réew mi di waaw te li muy wax yëpp dara du ci dëgg boo yaakaaree ni ay kàcc wala wax lu dul dëgg mën nga cee jiite réew mi da ngay sa bopp wasalaam merci